asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñoo ngi sant suñu borom bu baax a baax a baax ñoo ngi sant Cheikh Mahamadou Fadil si taxawaay bi ak leeral yi gën sant bu baax ci dégg digal gi mu digal xutba bi barkeb xutba bi dégg yi rek suñuy nopp doy nanu daja nag moom mën des wax lu ñu waxutoon dëgg xanaa fàttali ak soññi rek loolu it mën naa bañ a gudd loolu moo di rek ñu gën a góorgóorlu bu baax ci suñu diine góorgóorlu sàmmonte moom bu baax a baax suñu kem kàttan góorgóorlu itam sàmmonte suñu bu baax suñu diggante ñun jaam ñi góorgóorlu bu baax ci sunu jëflante sunu jëflante yépp ñu ko sànni góorgóorlu ci bu baax ci li gën a rafet jëfe di jëfe jikko yu tàdd wan gannaaw itam safaan yi kon diggante boobu rek góorgóorlu bu baax a baax sax ci sant sunu borom moom mi nu booleeg sëriñ bi sax ci sant sëriñ bi moom muy sunu léppi tey ak ëllëg dëkk sax dàkk ci wéetal sunu borom ci lépp sax dàkk ci doyloo sëriñ bi suñ digganteek moom ci lépp sax dàkk nag ci góorgóorlu bu baax nag sàmmonte suñ diine rek sàmmonte suñu taalu bi loolu rek mooy li ci am solo ñu ngi sant bu baax a baax bokk yi sant kilifa yi sant taalibe yëpp sant bokk jullit yi ci taxawaay bi nga xam ne waxtu wu nekk ña nga ca taxaw tem ci diine ji taxaw temm ci taalibe gi ndax taalibe gi diine ak taalibe rek moo koy mottali moo koy rafetal ndax taalibe du dara lu lépp looy def di ko def te yàlla tax muy bëgg muy mu mu mu jëf lu baax di daw lu bon te yàlla tax di wattandiku bu baax safaan ba ci lépp luy xeeti tere ak lépp loo xam ne ña rafetul lu góorgóorlu ci bu baax a baax di ko sàmmanteeg moom loolu rek mooy li ci am solo kon fàttali rek la ak soññe nan góorgóorlu bu baax ci li ñu feen muy jaamu yàlla rek la ca dolli ko mooy liggéey sëriñ bi te yàlla tax dañ ci góorgóorlu bu baax loolu moo nu jikk moom ci lañ mooy su njëriñal tey ak ëllëg mooy suñu biir suñu njëriñal biir ak bitti ci suñu mucc mucc nekk muccuk tey nekk ci su muccuk ëllëg nekk kon nan góorlu bu baax a baax a baax suñ yitte jépp nañ ko def ci jublu yàlla ndax loolu lépp mu ngi ci jublu yàlla su suñ yitte jépp ne yittewoo yàlla rek alhamdulilahi rabbil alamin sant bu baax ci tawfeex juré ji nga xam ne suñu borom defal na may def may nañu ko sëriñ bi sëriñ bi moom yittewoo sëriñ bi mu yittewoo yàlla rek jublu sëriñ bi mooy mooy jublu yàlla rek ndax bàyyiwul dara ci digg ma boroom kon lépp lu mën a doon eh, noo ngi ñaan bu baax a baax gannaaw ba nu santee suñu borom noo ko ñaan bu baax a baax a baax mu gën a fab suñuy nas gën na koo dénkal sëriñ Tuubaa sëriñ bi wommatal na boppam lu ci des lépp lu kon ak cant rek la war a doon ak sax dàkk ci góorgóorlu suñu kem kàttan ñi ngi sant ñépp ñu ngi sant bokk yi kilifa yi bokk yi taalibe yépp bokk jullit yépp kilifa yi yépp ñoo ngi sant ñépp di gërëm ñépp ndax taxawaay bi benn rek la noo ko bokk muy nekkal fi nekkal nekk nekk nekkal fi yàlla ni ci lim nu fi indee sax dàkk ci jaamu yàlla rek ak ak ak ak liggéey sëriñ bi ci lépp suñu lépp baax lu baax te yàlla tax loolu rek na nekk ci diggante boobu rek li ci lépp nag am ci rafet njort am ci xel mu dal gën cee gën a am yaakaar loolu rek la jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax a baax di am ci bu baax a baax ci taxawaay xam nañ ni taxawaay yitte yépp mooy sëriñ bi yittewoo sëriñ bi nag mooy yittewoo yàlla rek kon jërë ngeen jëf fa tabaarakallaahu amiin amiin